jërëjëf merci beaucoup. waaw man ah? it ma ah, sàggal <laughs> sama yaay de sàggal sama yaay sàggal les femmes euh, de du marché poisson ndax man maay responsable qualité bi foofu. Ah. di leen sargal bu baax c'est c'est des braves dames qui se lèvent 4 heures du matin di liggéey ba 22 heures. Mhm. di si sargalaale sama yaay parce qu'elle est marieuse di si sargal les femmes jàmbaar di sargal tamit borom plateau bi. Mhm. muy Adja Maimouna Seye man dama koo bëgg. merci beaucoup <laughs> ko a bëgg ñu ngi sargal. ñu may sargal les femmes de l'ombre de la 7TV. oui euh, juste ki ñu mujjee amal contact léegi mooy la la maquilleuse maman. maman. une fille très discrète. oui et euh, Constance Constance ak Constance mi nga xam ne mooy ñëw après midi bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax. Alors au niveau du montage également, nous avons deux grandes dames, mm -hmm. en l'occurrence Adja, euh, Adji ak Khadi. Khadi c'est la femme de la matinale. 4 heures du matin. mi ngi fii li ñuy li jàll yëpp moom daanaka moo koy monter ba pare avec le sourire qu'il faut du gant du def dara. très gentil très gentil très serviable et très courtoise. boo ñëwee jël aji également la deuxième monteuse bi fa nekk kooku la générosité c'est son truc à elle euh, elle est tellement maternelle et tout donc euh, elle en bas suñu liggéey ba wàcc mhm. salle de montage ce sont ces deux dames là mhm. qui qui apportent beaucoup de chaleur en fait dans ce que les gens y font euh, font le travail avec beaucoup d'amour lu ñu sonn sonn sonn duñ la woon sax ne sonn nañu vraiment honneur c'est important parce que salle de montage dafa nekk salle bu doy waar bu bi day génn dem sur le terrain. ñëw ñàkk ñëw ak ay humeur am. indi ay humeur am mais mm-hmm. bëgg a yàkkamti wàcc ñibbi. yow monteuse bi yow yaay gérer humeur bi nga xamante ni journaliste bi daf koy. et c'est important donc ñooñu vraiment dañ leen di jaajëfal. mention mm. spéciale bon euh, fête à toutes les femmes <laughs> <laughs> après après peut-être nañ si wax te loolu c'est pas grave mais bon loo mën wax rek moom mooy bonne bonne fête à toutes les femmes. merci et que bon bi ça naa ko titiller mais bon. Ah. gis naa ne bon. <laughs> surtout que nag surtout que ah, ah. ñi nga xam ne seen seen yaay yi ñu ngi dund. Mhm. moi c'est là parce que j'ai pas eu la chance de connaître la mienne. mais ay jigéen ñoo ma yar daanaka ci donc ñi nga xam ne vraiment seen yaay yi ngi dund. elles ont la pos ils ont la possibilité sa yu ñu yeewoo tarbiyu leen lu tuuti lu ñu am jox leen vraiment qu'ils en profitent. c'est important merci beaucoup à toute l'équipe matinale Charline merci beaucoup et très belle journée à toi moom aussi une de nos éminentes journalistes la coordonnatrice principale de la matinale euh, ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax Alassane merci pour cette très belle complicité su ma wàccee nga sargal ma ndax man maay sa waay ci matinale bi Wes merci beaucoup rendez-vous demain allah d'ici là portez-vous bien restez bien scotchés sur nos mbokk yi.